ngir waajal jongante yi 25 février ci at mi ñu nekk élection présidentielle fas yéene fal projet bi te ñëpp xam nañu ne Ousmane Sonko moo koy incarné waaye jëmmaam yitteelu ko soxalu ko li ko tax a jóg mooy li mu yéene askanu Sénégal ci juróom fukki at yi di ñëw mu daal di mat mu daal di sotti loolee moo waral moom Ousmane Sonko mu yëkkati yile kaddu yéen samay compatriotes yéen sénégalais yi nga xam ne boobu ba tey yéenay dugal seen ay koppar ci lépp lu ñu yëngu xam ne tey yegg si nañ a bu réewum Sénégal daal di soppeeku bu baax a baax ci aw doxinam ak doxalinam ndax da ngeen jël financement bu parti yi toppi aw xar kanamam bu baax a baax ndax nekkatu la fu ñuy jaaree ngir gën a may doore lépp lu la wàllum corruption waaye jamono jii yéen fexe ngeen ba mu doon mbir moo xam ne day tax kenn ku ci nekk ci ñun na mën a wane bëgg ma yéeneem ci réew mi ak pas-pas bi nga xam ni moom la daal di àndal waxtu wi jot na nag ngir pas-pas woowulee ñu daal di koy dëggal coono yéen ca dajoon yëpp waru taneen ndax dañuy waajal campagne bi ñeel élection présidentielle bu février 2024 te nag la ñu ci jublu te bëgg ko mooy projet bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ànd booloo def ko suñu ay xol ñu daal di koy tàmbalee mën a dëggal loolee moo tax moom Ousmane Sonko mu ne ñëpp nañu ànd booloo financé campagne électorale bi ngir mën a tegu ci yoon bi nga xam ni mooy mën a ma ndam ci atum 2024 gilee loolee mooy ngëm-ngëmam loolee la daal di xamal képp kuy sénégalais comme na ma ko daan defee ci page Facebook am boole ci nag Sonko président 2024 Focus 2024. AGT News. Bientôt, l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ousmane Sonko, le leader des Patriotes, depuis la prison, continue à se battre. Il a toujours affirmé que le projet dépasse sa personne, raison pour laquelle, bien qu'il n'est pas encore sûr de participer à ces élections, il a lancé un message aux Sénégalais concernant la levée de fonds pour la campagne électorale de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ousmane Sonko a tenu les propos suivants je le cite chers compatriotes chers sénégalais contributeurs nous voici sur la dernière ligne droite grâce à vous la politique sénégalaise s'est irrémédiablement épurée vous avez fait du financement des partis non plus un moyen d'aggraver la corruption gangrénant la sphère politique mais un moyen d'affirmer la volonté populaire le temps est venu de concrétiser cette volonté populaire en soutenant notre campagne pour la prochaine élection présidentielle de février 2024 devant aboutir au placement définitif du projet cher à nos cœurs sur sa rampe de lancement. Ensemble, finançons notre campagne électorale. En route vers la victoire en 2024, Sonko président 2024, Focus 2024. Tels sont les propos du président Ousmane Sonko, un appel lancé à toute la population sénégalaise. AGT News.